وسل يا علي يا كبير على الذي نبأ الخبير سيدنا محمد مع سلام والآل والسبي والإقبال الكلام وأبلي العلا وتكبيرا يا باقيا قد سبورا إلى سواي ولتدم لي الأمان مع رضائي ولتسفي لي زمان ولي أبيا قياسين المنى بلا تزلزل وقود أمنا ولي باليقين جملة ما هو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 mooy bis bi ñu koy ñaanal muy sëñ Abdou Latif Diène ñu ngi koy ñaanal tey jii fii ci ñenne tey nag gis nga mbooloo mi ak délégation yi gis nga fi kilifa gu nekk yaa ngi fi bàyyi ko di ñëw fii ci ñenne tey boo gisee ful bi yëpp macha allah wax dëgg yàlla mu doon xew-xew boo xam te ni waaye nag dañuy siyaare baax na ki am ci nii tamit moom lañ mooy borom dëkk bi muy Serigne Mountakha Mbacké xalifatu am li tarixatu muridiyya di mboolem rakkam yi mboolem képp koo xam te ni sëriñ bi yilif na la mu ngi lay nuyu bu baax di la ziar tey seen télévision bi am ci mooy Tawfekh production moo nekk fii ci Touba jërëjëf wasabi bilxaali walmaali bihormati ljafiyati almuazama ya qairan lolula walazama wasalli ya waasiu ya hakimu ala alladin qaadalo tahkimu sayidina muhammadin wasallima bil wasabi wa man qad aslama mbokk yi mi ngi mel ni tey ji ñu ngi fii ci ñaan gi ñu toog ak suñu sëriñ suñu xarit muy sëñ Abdou Samad mi nga xamante si nii ku ne xam na ko mu sëñ Modou Faty Khary mu Cheikh Massamba sëriñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. waa delloo ziar bu baax a baax a baax. tey lan nga yëg si jotaay bi waa tey de jotaay bu xaw a doy waar la waaye nag lu daan am rek la. waaye de moom bu ma saan am dañ naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye ñu ci dolli nag sant yàlla bu baax ndax ki dem jaamu yàlla ba am ngërëmam liggéey na ba am ngërëmul Serigne Touba te yàlla dogal na daanaka am na téeméeri at kon nag ak dundam fees na dell ak njëriñ muy sëñ Abdou Latif Diène moom Cheikh Issa Diène nekkoon ñaari xalifa bu Cheikh Issa Diène sëñ Baara mi njëkkoon a nekk xalifaam yàlla dogal na toog na fanweeri at ak juróom-ñett yàlla dogal na sëñ Abdou Latif mii bi ñëwee doon na xalifa bu Cheikh Issa fanweeri at ak juróom-ñett mu mel ne kon sëñ Issa daraam du asaar kon bis bi bisu euh, diine la bisub njabootu Serigne tubaala waaye bisub nag Cheikh Issa Diène la mi nga xam ne sëñ bi bi muy bëgg a wàcc kàddu gi mu saxal ci làmmiñam mooy ndekete nun de Cheikh Ibra Fall ak sëñ Issa Diène seen ba ca yàlla xamuñu ko loo kaddu googu lay wax ba ni mu doge booba nag xam naa ne ma ngay seen fële kon daal bis bi bisu diine la bisu lislaam la bisu tristesse lañ liñ koy waxee waaye nag bisu sant yàlla la bu baax a baax ndax kii dem yàlla feeñal na ci mbootam yàlla feeñal na ci moom yërmandeem waaye yàlla feeñal na ci doole Cheikh Issa mi nga xam ne nii dooleem fa yàlla ab jaam néew na ci war koo mën a xam sëñ Touba mi ko defal rek moo mën a xam sëñ Issa kum toll fa yàlla kon kaddu yi daal mooy bis la boo xam ne nii tristesse lañ koy wax bisu naqar waaye bisu sant yàlla képp la lim liggéey yal na yàlla may ñun ñëpp ñu liggéey ko lim dund yal na yàlla may ñu dund ko waaye daal ñu xam ne sant nañ yàlla bu baax ci jëmmam ji ba mu wuy ju boroomam kon yal na ko yàlla yërëm. taalibe ban message nga leen jaar ci yoon moom jaaroon rek yoon wa Sey Ibra jaaroon yoon wa Sey Issa Diène jaaroon bala ngaa mën a doon murit dëgg dëgg dañ laa teg ab dof yonent bi ab dof lañ ko tegoon sëñ Tuubaa ab dof lañ ko tegoon ba mu bind xaaloo safihun kon ñun buñ bëggee nekk ay nit ñuy calculer duñ mën a am li sëñ Abdou Latif Diène am ba muy dund woyof ga ak baax ga tax na lu bari xamuñu ko woon waaye bis na ko tey ku xool mbooloo mi xool jataay bi xool kadduy sëriñ Muntaxa xad kadduy Cheikh Ibrahima ñu fi yëkkati léegi da nga xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo am jariñ asalaamaaleykum ñu ngi fii ci Ndiéndé ci ñaan gi tey ñu jàkkaarloog sëñ Gora sëñ Gora yan témoignage nga ñu mën a jox ci kilifa gi fi bàyyi ko tey. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe rawatina njabootu waa kër maam Cheikh Issa Diène borom Diène ak Lagane waaw daa tey de daanaka moom liñ mën a wax lépp moom bari na ndax jëmm ju fi jóge moom ku rëy la ci yoonu murit mën naa ni banqaas bu rëy rëy rëy rëy wàcc na ci yoonu murit muy Cheikh Abdou Latif Diène moom Diène xam ni 1930 la gane jamono ba 2024 wuutu woon jàmbaar ju mag ja Serigne Bara Diène ci 1986 ba 2024 mu nekk ci xilaaf ak Cheikh Issa Diène gi lu jege fanweer at ak juróom-ñett waaye dundam gépp maanaam da koo jaay jaayu njureelam ci kër Cheikh Issa Diène jënde ko doon taalibeeb Cheikh jenn Diène doon jàmbaar joo xamante ni si lim liggéey ci yoonu murit kenn mënu laa wax ni toll xanaa ñu tënk ci waaye képp ku ko doon lim ci li si Abdou Latif Diène def ci yoonu murit mënoo koo jeexal ndax fanweer at ak juróom-ñett neexutu tënk ci ay waaye daal li ma leen mën a xamal ci gàttal mooy njenne moom ñàkk na tey jii muy Cheikh Abdou Latif Diène jàmbaari Cheikh sa Diène dëgg wuy ji na bàyyi ba tey jii fekki na magam ja Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Diène waaye nag sant yàlla rek ndax jëmm ji si Cheikh Abdou Latif defar nañ jenne yokk nañ jenne sagal nañ njabootu Cheikh sa Diène gi sagal na taalibey Cheikh sa Diène yi jàngal nañu liggéey xamloo nañu jaamu sunu xam xamloo nañu lan mooy ñuqi ak liggéey ak jaamu yàlla ak joxe addiye ak topp Serigne Touba kon tey jii njenne ñàkk na waayam waaye nag noo sant bu baax ndax defar na taalibe defar na ak njabootam tey jii metti na lool taalibe yi njëriñ képp koo ci xool xool xar kanamam nga xam ni tey jii am na lu rëy a rëy lu jóge ci ñoom waaye nag dañuy sant suñu borom te xam ni dundu doomu aadama dafa doon loo xamante day jeex kenn du muy woy muy continuer waaye nag mission accomplir matal na liggéeyam la taxoon Cheikh Issa Diène bawoon ko ci ginnaawam mu wutu woon ko liggéey na ko de ndax boo xoolee penc mii xool jumaay njaareem ji xool armeer yi xool kër Serigne Touba gi jëkk ci yoonu Mouride ca Ndande Fall nam ko def nga xam ne Cheikh Abdou Jenn moom jenn wàcc na noo ngi sant bu baax a baax a baax di am mbégte lool ndax xol yi fees na lool waaye nag àdduna moo baaxoo nii. ban témoignage nga ñuy defal ci Serigne bi. waaw Cheikh Abdou Latif Jenn ñu ngi ñaan yàlla yokk ay leeram taxari ko aljana man depuis 1986 laa ànd ak moom man mi may représentant ci Italie Serigne Abdou Latif nag man li may wax ci moom mooy liggéey bi mu liggéey ci diaspora sëriñ Abdou dafa dafa dimbali immigré yëpp teg leen ci aw yoon wan leen yoonu liggéey sëriñ Abdou Latif régulateur social la woon wax naa ko démb sëriñ Abdou Latif médiateur la woon sëriñ Abdou Latif kilifa la woon ba xam ni yàlla mooñ ko sàkkaloon ndax sëriñ Abdou Latif fu mu nekk jàmm fay am ci ci siraatal mustaqima la ñuy dox Europe nag defar na ko immigré yëpp teg na leen ci aw yoon ba mu fa ñëwee 90 li ma njëkk a wax nangu leen a liggéey te nangoo jaamu yàlla te ànd ak charte yu réew dafa nekkoon ku fonk loi ku fonk yoon kon kooku mooy Cheikh Abdou Latif Diène ñun nag dañ ko jiga mënuñoo seere ci moom waaye yéen tam ñu ngi leen di sant di leen seen taxawaay waaye daal ñàkk nañ kilifa gu am solo kilifa gu baaxoon waaye nag njabootam gi gis itam suñu xel dal nañ ci moom ndax njabootam gum gis tàggat na la ci lislam ak diine ak ak yoon yu mu nekkoon mu teg la ci kon ñu ngi ñaan yàlla xare ko aljana yàlla wane la kooku bàyyam ba maam Cheikh Issa Diène waaw mu mel ni tamit euh, ñu ngi jàkkaarloog sëñ Cheikh Diène al imaam imam ci Ndiène sëñ Cheikh tey euh, ban témoignage nga ñuy indil ci sëriñ bi. sëriñ bi maa ngi leen di nuyu baax leen ziara waaw xam naa sëriñ bi moom témoignage euh, xëy na du ay minute kii waxtu sax du ko doy ndax yàlla dogal na man ci ñi ko mujj fréquenté laa bokk te fréquenté naa ko daanaka nekk naa moom lu ma daanaka ñaar fukki yoo xam ni mën naa la daanaka ni amul thème boo xamante daawuñu ko waxtaane lépp ci àdduna lépp ci àdduna yàlla dogal na jamono yi mujj sax ñun lat fa teg ca dëkk ba ñu ne comme seede soofa kon loolu firal la ci ni li ma xam ci moom lépp bu ma ko bëggoon a wax du doy ndax bañ nekk ab tout tànk nekk ab di jàng cees la daan ñëw ci ñun dëkk ba dëkk ba ma kër ga ma nekkoon fa la daan ñëw te bu musaana ñëw bu jamonoy xiw li jotee day wax ni maam Cheikh ñëwoon ñu bokk waaye daa xam naa témoignage bari na li ma lay tënkal daal dama lay wax ni la sëriñ bi moom ci domaine boo ko jël rek misaal la ca maanaam doy na fa sëkk ci côté boo ko jël nag laa wax ci yi ñuy nattee doomu aadama yëpp boo ko ci natt rek macha allah fees na ko dell. xëy na gannaaw waxtu wi daa xat te te ñi yi mën a bari lool te ñi ci bëgg a wax mën bari damay wax benn témoignage boo nga xamante ne xëy na moom mooy li gën a am solo ci ëpp te loolu mooy li gëpp doole moo ko doon taxawee. moo di ni soññi taalibe ci jaamu yàlla goo xam du am rax mukk jaamu yàlla wéetal yàlla sonn ci yàlla sàkku ji xam loolu daana ko baax baax. ndaw ñi buñ yàkkamti nañ sàkku xam-xam te góorgóorlu daana bokk ci li mu daan dénk waa njente ne na ngeen góorgóorlu te bennoo na ngeen nekk benn saa yi ngeen nekkee benn lu ngeen bëgg dañ ko am bokk na ci li nga xam jàpp na ko ci moom te ñëpp bokk ko jàpp mooy bëgg bu baax a baax a baax bëgg mboolem julli yëpp rawatina ak mbokk boo xamante ne laal na ci deret wala yu mel noonu bëggoon na ko bëggoo xam ne amu ci woon amu ci woon sago xëy na loolu moom ko dëkk micro rek dana ko wax dana ko wax waaye nga xam ne ëpp am na solo te jamono bi soxla ko te moom bokk ci li mu daan wax moo di ni bennoo neen booloo te neen ndekk mbooloo te nekk benn maanaam mbooloo yi mu gis yëpp kuñ musaan a toog da daan wax ni saa yu ngeen nekkee benn rek sama xol sedd na ci yéen bu neen daan nag ku ne xam daan rek kër Cheikh Issa la rawatina jëmm ji nga xam ne bisam bii magam ji nga xam ni moo nu toppan ci moom ñàcc mooy sama turandoo sëñ Baara jenn ma tudd mu nekk ni koo xamante ni ci matal na wëllëree ba mu jeex tàkk sama baay bi ma ma jur ci moom mii la jébbalu mu taxaw ko sama rakk ji gaañu barki dem ci moom mii la jébbalu te kenn ku ci ne ba nga làqoo lu ca war def na ko taxaw la taxaw la bii taxaw la biti kon Cheikh Abdou Latif jenn kenn moom sama rakk bi ma bokkal ndey baay ci moom mii la jébbalu kon sëñ Abdou Latif Diène jikkoom baaxam bëggam lu baax goreem akub dëggoom yéeme woon na yal nañu yàlla taas ci barkeem jàmbaar la woon jàmbaar la woon ku mu mës a toogal ci àdduna rek du ragal kenn ginnaawam ku bëgg a xam dëgg rek toog si bëgg jënd mu teg ci dëgg boo xam gën dëgg la kon ñu ngi koy ñaanal yan yàlla taas ci barkeem yàlla lafal ñu cat yàlla may na fan gudd wàll ko wér maa ngi sant bu baax njabootam gi ñoom sëñ Cheikh barkal ak sëñ Sidi ak njaboot sëñ sëñ sëñ Latif yëpp rek maa ngi sant ñëpp di ko sant doom yi di ko commencé ko sëñ Sidi jenn ñëpp rek maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla defal ko kaw seen. tey ñu ngi fii ci ñenn ñi ngi taxaw ki nga xam ci ni tamit. moom ci moo bokk ci ñi jiite comité bi nga xam ci wax dëgg yàlla jamiya bi nga xam ci ni tey moom la biir kër Cheikh Issa mu bokk ci njiit yi ku ne xam na ko bu baax a baax a baax muy suñu xarit di suñu wëlëre tey nag yaa ngi jàkkaarloog télévision bi nga xam ci ni tamit moom mooy Tawfekh Production tey Cheikh Ibrahima Bey lan nga yëg tey. bisimilah barkab Seexul Xadiim jërëjëf maam Cheikh Issa Diène waaw tey de xanaa bis la boo xamante ni bisu rëy ci ñun la ndax euh, bisub tiis la di bis boo xamante ni dañ cey ñàkk suñu lépp ki ñu féete woon fépp muy Cheikh Abdou Latif Diène nekkoon xalifa maam Cheikh Issa Diène doonoon jëmm ju baax doonoon jullit àqan doonoon murid saadex doonoon koo xamante ni dundam gépp ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa la ko la ko jeexal ku bëgg Sëriñ Tuubaa ku bëgg njaboot Sëriñ Tuubaa gi ku bëgg njaboot ku ñeme njaboot ku bëgg taalibe yi ndax moom dafa nekk jëmm joo xamante ni nee na xaw ma ku jur xaw ma koo xamante ni mbokk nga doon ci man ki ñëw ci man rek laa xam mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla euh, ñun xam nañ ci moom lu bëree bëri waaw am na luñ ci mën wax. waaw moom day nekk dafa nekk koo xamante ni maanaam lab daa digle rek maanaam ngëm ndax ngëm la la la la wuy jee suñu borom subhaanahu wa taala mu nekk koo xamante ni dafa bëggoon ñu sax ci jaamu yàlla fonk ko lool julli juróom joxe addiya natt azaka mboolem xibaadaat yi nga xamante ni yu yu yu li suñ borom digle la saa su ne dafa doon bëgg ñu nekk ci bu baax a baax a baax euh, ñun nag ay ndaw lañ waaye fi ñu tegoon dalay dalay sax yéem ndax at yi mu am yéeme na lool ndax bul naan la ne koo xam ne dund na lu téeméeri at yu manqué juróom-benn loolu lu yéeme la waaw. ba tax na ndaw ñi sax la gën a fonk ñun daanañ bokk ak moom jotaay lu yàgg daanañ ko fekk ba néegu biiram daanañ waxtaan ak moom lu yàgg daanañ jekk waxtaan ak moom sax si téléphone muy loo xamante ni dañu jàpp sax jomb nañu tey defal nañu loo xamante ni muñu mënuñu ko mënuñu ko fay ñu ko fay rawatina nag mbooloo mi nga xamante ni ñu ànd ak ñoom bi war a liggéeyal maam Cheikh Issa Diène muy jamhir tawdih wa nasri li injazat Cheikh Issa Diène tey dafa bëgg taxawaay bi isbu taraxee am ko ci kër gi ci loo xamante ni ñu ngi koy doxal ci kër gi ak di ko nekk murit saadix nekk jëmm joo xamante ni ku nangoo liggéey ngay doon nangoo jaamu yàlla loolu la bëgg ku la gis rek xam ne kii ab murit la am na kilifa ci ay saa la bokk loolu daal la tàggat def ko ci ñun mu nekk ñoo xamante ne mu mu mu bëgg tamit ci ñun ñu booloo nekk benn ndax looloo tax kuréel yi bari na waaye tey ji bis bi boo gisee nii kuréel yëpp àndandoo taxawu ko bu baax organisation bu mucc ayib kuréelu euh, xasida yi mu ngi jàng waa Hizbut Tarqiyyah waa Daayira Salaam waa Daayira Mafatul Bisir kuréel yëpp ñoo leen di jàng rajaskat yi gis nga si Ibrahima Gueye si Blahat Touré ñoom ñëpp ñëw nañ jàngkatu alxuraan yi ñëw nañ jàngkatu xas yi ñëw nañ moom nii la la bëggee woon bis bi mbooleem ëxlu Mbàkke gi kenn desul ñëpp ñëw ëxlu Mbusoo bi kenn desul ñëpp ñëw nañ di feddali seen kóllëre ak moom ndax li sëñ Moussa Sall wax léegi day doomi mag di di di di di kilifa di jëmm ju am fit te yoon wi fit da cee baax loolu bokk na ci ay kàddu seere yoo nga xamante ni kilifa yi wax nañ ko mboolem waa kër maam Cheikh Issa Diène nag tàbbalee ko kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Diène ba kër Cheikh Abdou Salam kenn desul Cheikh Seck taalibe yi kenn desul di ñaanal nag kii fi nekk muy sëñ Cheikh Alim ak jëwriñam sëñ Abdou Salaam Jenn suñu borom yàggal leen fi te wéral leen ak njab doomu maam Cheikh Issa bu jigéen bi fi des muy soxna May Kubra Jenn moom suñu borom yàgg ak mboolem ñun suñu kilifa yëpp ba fi ñu bëgg yóbbu kër gi ñu am ci lu kawe suñu njort te dal nañ ci xel ndax moom fàggu na lépp waaw di leen sant nag bu baax a baax a baax te xam ne lépp Cheikh Issa la waaw lépp maam Cheikh la sant nañ bu nag bu baax a baax waaye sëñ bi nag moom daa fees suñu xol lool lool lool lool ba mënuñu wax ci moom lu bari ndax moo moo moo moo ñu def ak murit moo ñu def ak murit daleel ci man waaw mëneesul wax lépp wala isaaraatu tak fii bisimilah. waaw bokk taalibe yi moom moom li ma wax léegi te junj ko rek dañoo àndandoo rek kuréel yëpp booloo nekk benn depuis bis ba ba léegi ñu ngi fi taxaw baas baas yi taxaw bis bi euh, euh, lal bassan yi. maanaam organiser kii bi waañ yi tamit ñu def ko ay waañ yu bëree bëri kilifa yi def ku ne bu bu noppee rek fañ la war a yóbbu ñu yóbbu la fa kenn ku ci ne réeróowoo ak sa morom te loolu la bëggoon ci ñu waaw kon mu a doolee sant bu baax rek te di leen ñaanal tamit yéen ñi nga xamante ni ñëw ngeen di jëli di ko jàllale Tawfekh Production ak yéen ñi nga xamante ni ñu yëngu ci wàllu média yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm jëmm la daal joo xamante ni jëmm ju am ngërëm la Serigne Abdou Latif Diène waaw moom maam Cheikh Issa Diène surtout sëñ Ibrahima Sarr jazaaka ndax waajuram mu jigéen doomu soxna euh, euh, euh, doomi sëñ Ibrahima Sarr muy soxna Fat Sarr mu koo muy koo xamante ni tamit maam Cheikh Issa Diène mu ngi ko dippee Seexul Xaddim xam naa ko gis turu Abdou Latif dana la jaaxal waaye sëñ Tuubaa la ko tuddee sëñ Issa ñetti doomam yi fi des nii ñëpp sëñ Tuubaa la leen tuddee ki fi nekk xalifa nii muy sëñ sa alim sëñ Tuubaa la ko tuddee ki ñu dëddu nii barki dem muy sëñ Abdou Latif sëñ Tuubaa la ko caatam mii nga xamante ne waajuram mu jigéen doomi sëñ Tuubaa la muy soxna mujj sëñ Tuubaa la ko tuddee soxna May mii fi des soxna May Mbacke Bintul Xaddim lañ ko tuddee léppam sëñ Touba dafa jeex sëñ Touba Sëñ Issa mi ngi ci biir sëñ Touba waaw kon nag ñun daf daf ñoo seeyal ci biir sëñ Touba mun ñoo def lu génn sëriñ bi ndax yàlla bismillah euh, délégation bii nga xam te ni sëñ Cheikh Issa Diène wax dëgg yàlla ñu tuddee ko tamit maamam muy Cheikh Issa Diène tey mu ñëw fii di am yan kàddu témoignage nga ñuy jox ci bis bi ak kilifa gi fi bàyyi ko Ah, di sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm maam Cheikh Issa Diène radiyallahu taala anhu mi nga xamante ni mooy waajuram mooy sëriñam délégation bi nag ah, kii ci kër gi la dëkk di sëriñ Mor ak di directeur Sanat assurance ànd ak ay rakkam Pape ak ay doomam Pape Makhtar ñu ñëw fii ñu ñaanal bisu sëriñam wasilaam di sëriñ Abdou Diène nga xamante ni maam Cheikh Issa jën mooy waajuram si ñëpp li def nag ah, Cheikh Issa daa amoon ci moom yaakaar lool daf ko waxoon ne Abdou Latif mii dama am ci yaakaar na ngeen ko fonk di mag ñi daa woo mag ñi ba ñu ñëw mu ne Abdou Latif mii dama am ci moom yaakaar ko fonk ca njënd lakan ne ne Abdou Latif dee ko tuddee doom mooy sëriñ bi nga xamante ne maanaam ay turandoom ay turandoom ñoo maase wala mu mag leen kon kooku mooy suñu Abdou Latif Diène mi fi ganee nag 1930 ba 2024. at mi nga xam ne maam Cheikh Ibra Fall fi la bàyyi ko kon nag maa ngi koy jaale mboolem sorofaaw yëpp mboolem umma islamique bépp ñoo ñàkk mboolem ku bokk ci maam Cheikh Issa Diène rek ku nekk rek na xam ne ñàkk nga kenn bu mag di ko jaale sëñ si sëñ Mountakha Mbacké di ko jaale sëñ Sidi Abdoul Ahad di ko jaale sëñ Cheikh Halim di ko jaale mboolem koo xamante daal yaa ngi wuyoo jenn rek maa ngi la ko jaale moom nag benn bëgg-bëgg la amoon benn dàkk la amoon muy Cheikh Issa moom léppam Cheikh Issa la moom lay waxtaane moom lay wàllee kon nag ñi ngi ñaan yàlla yàlla wanal na ko sëriñam Cheikh Amul Khadim waajuram maam Cheikh Issa radiyallahu taala xam moom rek la doy loon bari sax Mouhamad yee yàlla nekk am noflaayam di ko jàll nag directrice générale assurance bi di Mor Aj nga xamante ne ba muy amee 14 ans la ko papam jébbaloon suñu ab Latif Diène nga xam ne boobu tout tànk la mu dem ba nekk kilifa tey ji mu dem ba nekk kilifa ci réew mi nga xam ne lu bari lay dugal ci réew mi lu bëri lay def ci yoonu Ndiène lu bari lay def ci yoonu Cheikh Issa kon ñu ngi koy jaaree sëñ Mor Aaj bu baax a baax ndax moom ak Cheikh Issa la woon maam Saliou Aaj ak Cheikh Issa Diène la ba tey lii ñëw waaw kon nag moom suñu ab Latif la xam moom xamul ku dul suñu ab Latif kon ñu ngi koy jaale bu baax a baax di ko jaale Pape Cheikh di ko jaale mboolem koo xamante ne yaa ngi wuyoo Diène di ko jaale nag mboolem ku bokk maam Cheikh Ibra Fall buntu kër maam Cheikh Ibra Fall yëpp ndax suñ suñ mortaale Fall ngi nii toog nga xam ne day kenn si njabootu Cheikh Ibra Fall di ambassadeur Cheikh Ibra Fall kon ñu di ko jaale suñ Moustapha Mbar di ko jaale suñ Amdi Modou Mena Fall di ko jaale Cheikh Cheikh Ibra Fall yëpp ndax nag Cheikh Ibra Fall dafa daan wax naan maam Cheikh Issa Diène moo man ci ndaw ñi man maa man ci mag ñi ñu ay mbokk mbokk maam mbokk dëkk Kajoor Cheikh Moulamine Bara Diène jël doomu Cheikh Ibrahima Fall am ci sëñ naar jenn kon fii moo kër maam Cheikh Ibrahima genn kër gi la Cheikh Issa nag dane woon sëñ Tuubaa ko waxoon ne ko Cheikh Issa ba amoon ndongo loo xamante ni kat day tallal loxoom mu ne ko Mbàkke de am na ko su ma ko amee bëriwut mu ne kon soo ko amee na ko wàcc ne leen Issa li ma leen mooy ngeen liggéey ak jaamu yàlla waaw Cheikh Issa na ngeen liggéey na ngeen am jaamu yàlla Cheikh Issa ñëwaat ni ah man sama ndongo yi ñaan naa leen képp koo xam ne nekkoo ci la nga war a nekk bala ngaa dee da ko gis wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. leen di nuyu di leen ziar baabaka Touré la bokk ci taalibe maam Cheikh Issa di doom di xarit di wóllëre di lépp Cheikh Abdou Latif Diène. bi. sëñ bi moom. kenn du ko xam ñun mëtu mëtuñu seede ci moom kenn du ko xam ndax kenn ku ci nekk lam ci séq lam séqoon ak yow euh, suñ borom defal na ko ca xéewal goo xam ni dugalu ca kenn ba tax na mbirum àddiya yee xam moom la ma daan dénk ba ca njaareem wax na ma ni de Babacar li ma yor lépp addiya rek a ko tax a jóg te man am naa am naa ci lu ma wóor ndax alali boppam sax bu jébbale masaana jot daal na ko jaay eh, ngir addiya ji gën a gën a yokk li ko dale ci fanweeri million yéen doon yut sëñ Sidi ba ci juróom-ñett fukki million ak ñaar yin mujj jébal si am mun taxa Mbàkke di ñaan suñu borom yàggal ko fi lépp sama loxo bii da daan wax naan Babacar yow bul dawal deel yor saag bi rek yow moom bul dawal yoral saag bi rek ay doomam yi nangoon ma ko lool ba saa buñ masaana dem ci sëñ Muntaxa sax bu ne ñetti nit ay dugg mbaa ñaari nit ay dugg man mii la bàyyi ak kenn mu dugg mbaa man ak ak ñaar ñu dugg doomi boppam nangul ma ko lool lool lool mosuñu xëccoog man ci dara kon nag maa ngi ñaan fa seen waay fa suñu waajur wa tegoon tànkam nañ fa teg suñu tànk rek ndax ñun wax dëgg yàlla euh, lu dul ak taalibe rek amuñu ci soxla lu dul ak taalibe lañ lu ñu waay mën a ëppalee lu dul ak taalibe rek